mbooloo mi euh, ñu ngi tàmbalee nuyoo bi ci inspecteur ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu euh, vice-président CNG bi di nuyu également président CDJ di nuyu président FIS muy Bamba ak euh, équipe am yëpp di nuyu samay collègues waa ANAMO ak waa direction de l'horticulture di ne rek kaddu gi ñuy jël ñu ngi koy jël ci ndiggalu suñu directeur Modou Fall Euh, maa ngi tudd Pape Ablaye Dione di conseiller en emploi euh, nekk ki nga xam ne moom lañ chargé lépp luy formation pour l'insertion doon également travailleur social de formation alors euh, ñuy tàmbali rek remercier Bamba ak équipe bi àndal ndax bañ ko commencé daaw ba ba ren gis nañ ne ba léegi ay succès rek lañ ciy am kon ñu ñaan yàlla loolu continuer ñaan yàlla aussi partenariat bi dem bay gën a jur ay ngëneel ay ngëneel ak i ngëneel euh, di wax ne rek kàddu gi ñuy jël dañ koy accès ci ay points yu ndaw maanaam dinañ njëkk wax ci situation bi nga xam ne moom lañ euh, moom la ñuy dund jamono ji ci marché de l'emploi buñ ci jógee aussi dinañ wax ci lan mooy njëriñu métier ñu dinañu wax également lan mooy dispositif yi nga xam ne moom lañ am ci ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion dinañu wax également ci ay solution yoo xamante ni mën na dimbali euh, mbër yi nga xamante ni ñu ngi fi ñu leen di nuyu également au passage alors ci situation marché de l'emploi bi tey ñëpp xam nañ ne xëy jafe na ci Sénégal loolu aussi dañ koy nangu ndax li koy waral mooy xëy na ñu amuñu métier wala bu ñuy jàng aussi dañuy jàng loo xamante ni du leen mën a jural lu bari mais buñ ko contextualiser ci cadre làmb wala cadre ñi nga xam ne ñoom la ñuy waxtaanal ñu bëri dañuy naan ah ay mbër lañu kon mbër laa yaakaar pour dund mbër mooy sama métier mais est-ce que réellement mbër métier la loolu aussi question la boo xam ne dañ koy posé wu mais même bu dee métier la aussi inspecteur wax na ko sànq mbër yi tey bari nañ bari goo xam ne déjà en mille 2019 ñu ngi doon dénombré 3679 euh, euh, lutteurs kon tey ñaata mbër lañ am ñaata écurie lañ am jamono jii en 2019 laa wax de référence bi ñu ngi nekkoon ci 164 écuries Sénégal 2019 buñ jëlee buñ jëlee nombre mbër yooyu niñ baree yépp nga xool ne promoteurs yi nan lañ toll est-ce que bari nañ promoteurs yi bari nga yokk ci promoteurs yi même buñ bu amee promoteurs yuy tëgg xëj na mbër yiy bëre bëri wuñ wala ténor ñooy bëre ñu ci ndaw ñi nga xam ne ñu ngi bëre ñu ngi am chance su bokk ci làmb jooju mën na leen yóbbu ci leneen loo xam ne safaan mais tey contexte bi ñu toll gën na wone jafe-jafe bi nga xam ne ñàkk am métier moom la làmb amul kon ku amul liggéey looy def ñuy jaalewaale également euh, famille wu làmb yëpp xaj na ci euh, nakk bi leen dal ci fan yi ñu jàpp ne loolu yépp ci contexte bi la kon ñu jàpp ne rek solution yépp solution bi gën a gàtt mooy ku nekk am métier mais pour nga am métier aussi euh, euh, chargé de la communication wax na ko sànq nekkul ne rek ah nee nañ formation nga xëy rek ne ah nee nañ sérigraphie nga dem def sérigraphie déedéet ku ci nekk war nga mën a xool yow ci say prédisposition lan nga mën def lan nga jàpp ne lii bu ma ci duggee mën naa cee génn au delà nit ki sa sa sa sa carrière da nga war a xool sa plan de vie da nga ko war a defar xëy na loolu buñ ci demee ba recenser ñi nga xamante ni euh, ils son intéressés dinañ ci am lu ñuy def ba nga xam ne ku ci nekk dinañ la orienter selon tes aptitudes selon tes capacités ci lan nga xam ne boo ci duggee dina la mën jural dara ci lu gaaw kon ñu jàpp ne rek état du Sénégal tey xalaat na si maanaam scénario yi mën a am yëpp tey au niveau du ministère euh, xalaat nañ ko teg ndax ñu bëri dañ doon naan mënuma jàng ndax aw ma jànguma woon français ah déedéet loolu weesu nit ki niveau boo mënti am Sénégal tey mën nga jàng am métier am diplôme wala nga am certification loolu lu leer la xëj na dund nañ ko ak euh, waa fiis expérience yaa ngi fi kon ñu wax leen ne rek c'est possible c'est possible de rest ici c'est possible d'être mbër nekk mbër c'est possible en même temps ngay def leneen nit ki da euh, euh, double emploi mën na ne alors bu ñu weesoo loolu boo ñëwee ci ministère pàcc yi fi am yëpp am nañu ONFP wax na ko sànq nga xam ne ay formation de courte durée lay def maanaam formation bu guddee bu gudd ay 6 mois lay def nga génn am sa certification certification boobu day valoir Euh, ci sous région bi yëpp boo ci dem ak certification bi mën nga liggéey métier yan lañ ca mën a promouvoir tey mën na nekk euh, dans le BTP maanaam bu ñu nee BTP mooy li nga xam ne dafa jëm ci tabax ci bâtiment carreleur euh, ferrailleur lépp ci biir la lépp lu jëm ci BTP rek mën nañ la cee accompagner lépp lu jëm ci également ay sérigraphie ay infographie comme moom ni mu ko waxee loolu yëpp aussi mën nañ mën nañ la ko defal am na tey aussi li ñu naan le projet FPEC nga xam ne jàpp naa ne mbër yi tey war nañ ci mën a am wal bu yaatu nga xam ne ñoom dañuy former ay nit ci ay horticulture xëy na euh, sama naataangooy bu ñëwee dina ci dina gën a yaatal ci liy horticulture mais li ma ci gën a soxal mooy ñi nga xam ne ñooy dawal les engins maanaam euh, euh, oto yi nga xamante ni oto wala machine yi nga xam ne dañu dañu am doole te nga xam ne bu ñuy def recrutement bi li ñuy njëkk saytu ci nit ki mooy est-ce que kii am na kàttan est-ce que kii résistant est-ce que kii Euh, am na fit ndax booy dawal yooyu engin day soxla yow nga am fit ba nga xam ne bu amee situation boo xam ne kiiwul nga mën a résister mais également nga am kattan goo xam ne di nga mën a def liggéey bi yëpp maanaam liggéey bi ñu la laaj ndax grand engin day soxla kattan loolu yëpp mu di ay opportunités yoo xam ne am na fi et c'est possible aussi de le faire avec euh, l'association FILS 3FPT également fi mu toll nii lancé nañu ay formation à courte durée ci ay domaines yu bari loolu yëpp ay opportunité la yoo xam ne mbër mën na ci de keneen mën na ci accéder alors am na également dans le cadre de l'artisanat en damay bàyyi sama collègue bu ñëwee aussi moom mu xuus ci en euh, amont mais am na également li ñuy wax le PEJA tey mbër moo ci xamante nii am nga métier booy def ci artisanat maanaam loo xam ne ci warul loxo la PEJA dafiy nekk di leen di accompagner récemment rek euh, ñu ngi doon financer nit ñi ci ay ay ay ay maanaam jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey nga di tailleur nga di euh, mécanicien nga di électricien tey ñu accompagner la ci nga am équipement yi nga xamante nii moom nga soxla loolu tey PEJA mu ngi koy def dans le cadre ministériel te loolu yëpp c'est possible ak FIS ngeen accéder ci te coono bi du baree noonu alors loolu bu weesoo kon dañ jàpp ne mbër tey war na mën a nekk entreprise entreprise bu fekkee ne mbër mi gëm na ne moom ci boppam ci labelam ci turam ndax tey euh, turu pakala mii fam fa mu yegg am na ñu bëri foo ñoo xamante ni day pak euh, euh, entreprise u pakala la day dina tax ñoom ñu investir ci seen xaalis wala ñu jox ko marché ndax turam fa mu yegg la kon dama jàpp ne mbër produits la boo xam ne da ngeen ko war a jaay produit boobu da ngeen ko war a exploiter kon waroo leen xëy na am na ku ko fi junj war ngeen mën a am réseau boo xamante ni dina leen permettre ngeen am ay GIE am leneen ci ay pàcc yu bari mais mu bañ a yem ci benn pàcc mais ngeen fexe ba képp koo xam ne ci bokk nga ci équipe bi rek nga xam nga am foo xam ne mën nga fa seenu sa bopp xëj na loolu buñ doxee ba ci biir aussi niveau direction dinañ leen mën a accompagner ci xalaat yooyu nu ñuy def ba créer entreprise yooyu nu ñuy def ba formaliser ko nu ñuy def aussi ba accompagner leen à à le en œuvre loolu dinañ ci ñëwaat mais ma xamal leen ne rek tey mbër mbër waratul nekk comme ni mu ko waxee dañu war a am beneen façon mbër man dama am ku ma ci gëmoon muy Mike Tyson muy wax arène euh, euh, euh, business maanaam nit ki li ngay def da ngay jàpp ne ci lii li lii ci lii laay tedde kon bu ma ci nekkee ko am naa nu ma nu ma ci war a doxe kon xëy na dinañ ci ñëwaat donc li may terminer rek mooy ma jàpp ne yéen yéen a war a doon ambassadeur u làmb yéen a war a defar image yu làmb ba nga xam ne làmb tey nit ñi dinañ ci ñëw investir ci xaalis nit ñi dinañ ñeme jël mbër dénk ko sa entreprise ne ko ah doxalal loolu yëpp day fekk ne nit ki nag faw nga am beneen beneen beneen gis-gis beneen diplôme beneen xalaat ak beneen comportement booy wan mu bañ a doon ne rek ah gars yi buñ soxlaa ku leen dajjil benn mbir ne ah nañu woo mbër yi kon boo leen demee boo am agence boo xam ne tey agence de sécurité la dans les normes loolu dina deñ kon euh, ñuy jéglu ci kàddu gi xaw a ñu leen di wax ne rek boo leen euh, bu ñu recensé nit ñi après dinañ ci euh, gën a yaatal incha allah donc Bamba ñu ngi leen di gërëmaat bu baax